waaye bu ngeen ma jiitalee lu yàqu sunu diina jee ba muy yàq murit gilee du doon ci man بلسانهم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa mu Seex Muhamadul Basiir di ñaan yàlla mu yàggal ko fi te wéral ko ba li mu yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa lépp mu àggale ko ci sagoom ci barkeb sëriñ Tuubaa di am mbégte teewaat ci jataay bii nga xam ni jataay la boo xam ni bis la boo xam ni lépp lu ci waay fas am nañ yaakaar ju wér ak yaqin ju wér ci ni danga jot ndax bisub sëñ Tuubaa kon ñu dollee góor lu baax sëñ ndaw tubaarkàlla kàddu yi rafet na lool ñu fàttaliku rek comme noonu ko ko waxee léegi sunu wajur wu baax yi nga xam ne da doon ànd ak ñun ci bis bi muy sëriñ Baye Ndiaye ak mboolem sénégalais yi nga xam ne yàlla daa dogal ñu nekkoon fii daan doole te fi fii wàccub liggéey ah, ba ci soxna Fatou Sakho mi nga xam ne moom ab kooram mi ngi fi demagut sax ñu ñaanal ko ñu bekk ñu bokk ñu ñaanal ko ñun ñëpp Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Balla ñu ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay waxtaan wi nag yow yaa koy def ñun dañuy am tuuti benn message bu nuy jàllale rek ci njaboot gi nga xam ne ñoo ne fii ci réew mi sëriñ bi Mbàkke ñu ngi lay dalal jàmm di la tatagal di la masawu coono yi ndax Sénégal ak fii sori na lool yitte yi bari na xat-xat yi bari na nga dagg sa yitte yëpp ñëw fii kon loolu day wane ni bis bi rek maanaam euh, yéen ñi nga xam ne yéen a koy taxawal sëñ ba ak mbokk taal bi yëpp am ngeen ci ndam ndax jëmmi sëriñ Saliou ji teew na ci kuy woote bis nag ba boroom teewal ca boppam kon loolu yaakaar naa sa xel wala naa dal bu baax kon loolu na ci seen xel dal bu baax ndax bis moom ndam rek ngeen ci am incha allah man de eh, dinaay faral di dem fu bari waaye njabatug sëñ Saaliwu ñuy tukki de bariwul lu may daje ñoom ci àll bi ci moom ñi da laa a daje ku bokk sëñ Saaliwu ko koo xam ne daje nañ ci àll bi muy tukki di la jàddee nag tekkiwul ni ñiy laaj àddiya dañ ko war a def dañ ko war a def waaye day wane ni ñoom daam lu leen di sëñ bi li sëriñ liggéeyloo ca loola lañ nekk muy bay ak jàngale alxuraan ak jàngale xasida sëñ tuwaay waaye ñi nga xam ne sëñ tuwaay da leen di liggéeyloo ci àll bi nag ku demee ni Cheikh Mouhamadou Mourtala góor yàlla yàlla ñu yàlla yokk ay leeram ak njabootu sëñ tuwaay gépp ñi nga xam ne sëñ tuwaay da leen di liggéeyloo ci àll bi ñoom lu leen war la loo xam ni mook liggéeyal sëñ Touba ca Touba ñooyam képp ab atte kon sëñ Bamba ñu ngi lay jaajëfal <coughs> yaa ngi mbooloo mi nga àndal ñëpp ci liggéeyub sëriñ Touba bii di ko jaare ci buntub sëriñ Saalix Mbàkke mu sëriñ Touba ñu ngi leen di jaajëfal di leen masawu coono yi di leen ñaanal ah di leen xam di leen xamal ni <coughs> lu baax moom yombul képp kuy dox jëm ci lu baax dana bari ay fakk dana bari ay dëkk dana bari ay ay gàllankoor yoo xam ne day day day day tee mën a yàgg nga xam ne positif rek mooy tax nga man jàll yooyu pour yegg ak njàmbaar ndax kenn ku nekk xam na ne yoon wu baax wi moom jafe-jafe képp ngay jaayanteel ba keroog nga yegg fa nga jëm ah, yoon wa ca des nag daa nooy nepp leer nañ moom daanaka booy xalaku sax di yegg di dem muy yàlla nañ ci yàlla musal mu yoonu safaan ba kon sëñ Bamba ñu ngi lay jaajëfal di la masawu di ñaan yàlla na yan bi woyof yàlla na leen Serigne Touba kattanal ba li ngeen ci nasar lépp ngeen am ci lu kawe seen jot ci barkeb Serigne Touba. Euh, comme guddi na nag message bi ñuy jàllale nag mooy euh, yéen mbokki taalibe yi nga xam ni ak mbokki jullit yi ak képp kuy senegale ñu bokk nekk fii ci réew mi euh, liy xew day liy xew ah coow li bari na ci lool waaye nag nañu góorgóorlu bu baaxit comme ni ko. jëwrin mi nga xam ne moo fi taxawoon léegi euh, arfan jeeju doon waxee ak sëñ bamba ni mu ko leerale nañu góorluwaat xoolaat suñu bopp xam lan moo nu yëkkati li ma leen di xamal daal mooy képp koo xam ne da yem fa fa nga war a yem def la nga war a def la war a def jërul ngay ragal ab takk der ab takk der di la jàpp ngay xëccu loolu ab taalibe waru ko def sunu sëriñ sunu sëriñ ban ko soxlaa moom moo leen fekki da koo jar li ngay téye sa loxo nii buñ ko jëlee jox leen ko jërut xataraayu loolu du njàmbaar xataraayu nii du njàmbaar jàmbaar dëgg bu ñëwee taxaw ak yow waxal ak ñoom waxi nit ànd ak dal bul def fi dof dafa am na loo xam ne yëfi dof dong nekk di xataraayu di yuuxu ñu lay filmer nit ku ñun dañoo am ay nawle am ay njaboot senegal loolu war nañ koo ruus suñuy doom gis ñu ñuy yuuxu nañ góorgóorluwaat xam li nu yëkkati loolu du dara alal ji bi ñu fiy ñëw indiwuñ fi dara te bu nuy dellu du ñu yóbbu dara àdduna képp kuy juddu da ngaa ñëw indiwoo fi dara booy faatu tamit booy dem doo yóbbu dara réew mii nu nekk di fi daan doole tamit bi ñu fiy ñëw Dakar gu fi ñëw dañ lay kocc koccal dajaleen la ay cent deux cent nga am nga kocc kocc ba am sas mal di ci góorgóorlu ba ba am ay million kon nag booy bu la yàlla suturaalee ba nga tabax ci kër am ci nangam ak nangam am ci lu baree bare baree baree bare li nga xam ne moom nga yor sa loxo ñu ñëw di ko jël bàyyi leen ko te xam ne yàlla lim yor du jeex yàlla lim yor du jeex te tey yàlla du tas yaakaar mukk sun borom tabaraka wa taala du tas yaakaar mukk yaakaar yi am jóge Sénégal ñëw bu fi dara du ci tas te ku dund ba déwén am loo lekk ba déwén nañ xool ci njaboot ga nga xam dañoo bàyyi Sénégal maanaam li leen di bàyyi ci réew ma ñu yaakaar ñu rafetul ñu ñuy gis ñu ñuy tënk comme ay ay ay mbaam ngeen baal ma ci kàddu gi loolu rafetul bu bu ne laa andi jox leen bu ne laa yéegal nga yéeg sëñ Tuubaa moom doo ragal loolu mooy ak njàmbaar loolu mooy ak njàmbaar bu ne laa jox leen bu ne yéegal nga yéeg kenn du la manote manot du yëfi nit kuy bañ la ñuy manote te ñun waruñoo def loolu ànd jiitu leen ci oto ba dem yéeg toog jàmm dong la cay fekk kon ngeen baal na wax sëriñ bi daa war a waxtaan ak mbokk taalibe wa wasalaamualeykum wa rahmatullah